أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والحاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بوكي داري خم خم ak jàngale seen mbokk Xaadim Njaay moo del siwaat seen jotaay bi incha allahu taala ci seen darsu tey incha allahu taala ñu fas yéene sof sunu bind ca fan toll woon doon jàngale ca la nga xam ne mooy eh, yoon yi doomu aadama bi di jaar su fekkee bëgg naa baax yoon yooye ban ci doon ci doon ko jàngale mooy ab xol doomu aadama su bëggee baax dafa war a sonn ci defar ab xolam ba xool ba baax su xol bi xasee baax rek yeneen cër yi ci yi ci des yépp seen baax day daal yomb ndax dañ ne li nekk ci ab xol mooy feeñ ci ay cër te muy lu wér cër yi moom meluñu neen ñoom ñëpp ay dag rek xol bi mooy buur bi kon suñ baaxalee suñu xol ba àggal ba yéene ñëpp jàmm comme niñ ko yéene suñu bopp bëggal ñëpp lu baax comme niñ ko bëggale suñu bopp ñu sësale ci yeneen cër yi xam nga ne xadis ba dane woon kullukum raaxin wa kullukum masulun an raxiyatihi euh, ba ba hadis ba jeex hadis bu gudd la yéen yàlla ma sa sam nee nag képp kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la te sàmm bu nekk dees na ko laaj lam doon sàmm bu ëllëg yowmal xiyaam doomu aadama nag suñu borom daf koo boole ak juróom-ñaari cër juróom-ñaari cër bokk na ci ab xol bi ñu doon jàng waaye bokk na ci it bi ñuy jàng suñ bindu tey mooy ñaari loxo doomu aadama bu nekk suñu borom jox na ko ñaari loxo ba pare sàmmloo ko ko sàmm googu nag ëllëg yowmal xiyaam dañ ko koy laajaat kon loolu sàmm gi warugar la te xam ngeen ne ëllëg yowmal xiyaam suñu borom subhaanahu wa taala bu dee laaj bu dee laaj jaam bi jaam bi du tontu ci ay ci ak gémmiñam waaye cër yi ci boppam ñooy wax seen bopp ñoom di wax lañ jëfoon kon su boobaa su fekkee sa loxo sa ñaari loxo yi daan nga ci jëf lu dëppoo ak la taxoon ñu bind leen kon su boobaa day sa tontu ñoom seen tontu dina jub te di nga mën a am ndam lu baax su ko defee dafa am. ci bàkkaar yu mag yi ñaar yoo xam ne dañ koo jagleel loxo ñaar yoo xam ne nee ñu loxo moo koy def muy li ñuy wax sàcc ak li ñuy wax rey nit loolu moom ñaari bàkkaar yooyu neen dañ koo jagleel ki nga xam ne mooy loxo mbokk yi sàcc day lu doy waar sàcc day lu doy suñ bëggee xam ak garaawam ak ni ko lislaam aaye dañuy dem ci alquran ñu fekk ci borom bi subhanahu wa di wax ni ku sàcc te doon góor wala ki sàcc te doon jigéen ñoo ci yemoo mooy assaarixu xa assaarixatu mooy ki sàcc te doon jigéen assaarixa mooy sàcc bu góor ñu ko mën a waxe faqatahu aydiyahuma borom bi day digle kum ci mën a doon ci sàcc yooyu ñu dagg ab loxoom bu ko defee loola sariya moo ko santaane borom bi subhanahu wa taala wax ko ñu war ko def képp koo xam ne sàcc na te lam sàcc ñu yóbbu ko ca xaadi ba ca àttekat ba mu saytu lam sàcc mu mat ci yoon nekkul ne euh, lu ñàkk solo la ñuy daggeeb loxo nekk ku sàcc aw fukki dërëm wala téeméer wala yu ñàkk solo waxalaa li xaalin daal suñ su ab sàcc sàccee lu am solo buñ ko yóbboo ca àttekat ba dañoo war a dagg am loxoom ab loxo nag ni mu amee solo ci doomu aadama lépp luy tax ñu di ko dagg xam ngeen ne loola lu diis diis la loolu di a diis la kon dafa bokk ci bàkkaar yu mag yi dafa bokk ci bàkkaar yu mag yi mooy ci sa loxo wala nga cay rey sa mbokkum julit rey nit ci daf ci bàkkaar yu mag yi la bokk kon julit bu nekk war naa sàmm ñaari loxoom ci lan ci ñoŋal leen ba du ci sàcc du ci sàcc mooy du ci jël alal ju moomut dafa xaraam ab julit war naa ñaari loxoom su wéetee ak su wéetali ko ndax te xam ne ëllëg si biir lu ci defit des ko koy laajaat waaye war naa ñoŋal ñaari loxoom yooyu ko yàlla booleel ci lan ci fexe ba du aadama waxuma rey sax waaye fexe ba du ci lor jenn doomu aadama ak ci anam goo koy mën lore day xaram ci ab jullit muy bind ab xaatim boo xam ne ma ngi koy bind te fekk da cee lor doomu aadama loolu dafa xaraam dafa xaraam ci ab jullit muy bind ab leetar boo xam ne da dafa xaraam ci moom mu wax ko ni baat yoo xam ne suñu ko wax nga di ko bind ab leetar lool dafa xaraam dafa xaraam ci ab jullit muy bind ci ñaari loxoom lépp loo xam ne dëgganu ci sariha koy bind ci ñaari loxoom loolu day xaram xaraam na ci ab jullit ba tey muy def ab signature ci loxoom wala muy kase ab tampon ci loxoom ci loo xam ne maanaam ànd ci lu dëgg seere ak neen la masalan loo xam ne euh, dañ la ko bëgg a seereloo nga bëgg koo seere xam nga seere làmmiñ a koy def waaye su fekkee dañ laa bëgg a def témoye ne la signal balaa ngaa signé na ngay signé bu baax na nga seetluwaat bu baax la ngay signé ak lu mën a doon su fekkente ne du ak dëgg nga di ko signé yaa ngi signé ak neen loolu sahaadatu zuur loxo da koy def ñu bàyyi ci xel bu baax a baax bul jàpp ne làmmiñ rek moo koy def bu fekkente ne da bind ci sa loxo sa signature ci aw kayit wax ni man de maa signé ne fekkee woon naa nangam wala ma maa signé ne signature ba ne maa fekkee nangam wala maa gis nangam wala ma wax ne nangam dëgg la te fekk yow la nga wax dëppoo wut ak la loolu yaa ngi seere ak neen te loolu borom subhanahu wa taala daf koy aaye mooy seere ak neen bokk na ci bàkkaar yu mag yi kon daal ab julit dafa war a sàmm ay loxoom ba wuru ci bind dara lu xaraam wuru jël alal jàmbur waru cee signé benn signature boo xam ne maanaam buy lor la waru cee bind genn gàllaaj wala genn saafara joo xam ne day lor waru cee bind dara loo xam ne day dëddale ay julit waru cee def waru cee laal jaambur bu jigéen dafa xaraam ci moom waru ko caa laal waru naan sàngara dafa xaraam ci moom waru waru ko cee jàpp ko ci naan waru cee def lépp loo xam ne dañ koy aaye ab jullit dañ koy defee ci ab loxo loola da ko war a wattandiku ñaari loxoom yooyu di sàmm ñaari loxo yooyu ndax lan ngir xalaat li ci kanam ëllëg mooy laaj gi ko ñaa ko borom bi subhaanahu wa taala laaj ku nekk xam na ne ëllëg yow ma xiyaam suñ teewee ci kanam borom bi subhaanahu wa taala yàlla day tëj gémmiñ mooy al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kaanu yaamaluun borom bi subxanahu wa taala ñu bàyyi xel ne ëllëg yowmal xiyaam day tëj gémmiñ day tëj gémmiñ day kask gémmiñ ba pare di waxloo ñi nga xam ne ñuy cër yi su boobaa loxo dees na ko laaj ana lan nga mas a def yow loxo ana lan nga mas a def aw aw waxin la su boobaa moom dana répété maa defoon nangam. maa defoon nangam maa defoon nangam maa defoon nangam ba mu jeex lépp lu masoon a def dina ko wax moom loxo boobu su fekkee da nga caa mas a bind lépp loo xam ne day ab xaatim la buy dëddale ay nit wala da nga caa mas a bind ak jibaar goo xam ne yàlla gërëmu ko wala su fekkee da nga caa mas a bind ab signature boo xam ne eh, lu xaraam la yàlla gërëmu ko wala su fekkee loxo ba da nga caa mas a sàcc wala su fekkee soo loxo boobu da nga caa daan nuyoo nuyoo ak jigéen joo xam ne dalaa xaraam. te tey ko wala su fekkee sa loxo boobu danga ci daan jonjoo ak jigéen ju la xaraam te tey ko wala su fekkee sa loxo boobu danga ci daan def dara loo xam ne lu neexul yàlla loolu lépp loxo bi dina ko wax waaye kasaalika su fekkee danga ci daan jëf loo xam ne lu neex borom bi subhaanahu wa taala la mooy li taxoon yàlla bindi ko mooy nga ciy dimbalikoo ci jaamu yàlla nga ciy dimbalikoo ci lu neex borom bi subhaanahu wa kon su boobaa it loola su ko loxo bi seere da nga ci am mbégte lool kon ñu ngi wat ndikuloo suñ bopp di wat ndikuloo képp kuy dégg suñ darsu tey mooy sàmm loxo sàmm loxo daa bokk ci yéen war a sàmm ndax li ñuy laaj ëllëg ci la bokk kon ñun dagam ay sàmm lañ teen sàmm loo ñu suñu loxo nañ sàmm suñu loxo fexe ba buñ ci sàcc alali jàmbur fexe ba buñ ci bind benn signature fexe ba buñ ci lan buñ ci ray suñ mbokkum julit waxuma ray sax waye fexé ba bul ci kenn door lor sa mbokum julli door yo xamné doomi du doori sayya ni gi sa dom ji ndaw ji nga yar nga xamné sañ jël ab yar di ko wala yu mel non waye yekati ab ko fagn door sa morom jullit ci kaw ñi ci kaw lu ndaw lu ñeen reer wala yu mel non man na am beutam puruja ca man na am bañum rot ca man na am mana na am mana am lola ab jullit war na ko moytandiku ndax loolu joju reyna waaye kazalika noonu la it di ci jonjoo ak jigéen joo xam ne daf laa xaraam moo xam danga koy nuyu wala moom moo lay nuyu yooyu yépp dañ koy wattandiku ci loxo kon suñ bëggee suñ bëggee suñ tontu ëllëg ci kanam borom bi subhaanahu wa taala nekk tontu loo xam ne lu neex lay doon mooy loxo di tontu ñuy am mbégte nañ góorgóorlu ci sàmm suñ cër yi nga xam ne moo tudd loxo kon darsu bi tey dafa jëmoon ci loxo ak yi ci aju ñu gën cee bàyyi xel bu baax waaxiru daxwaanaan alhamdulilahi rabbil alamin